aousubillahi min asheytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi wa inni aousuha bika wa zurriyataha min asheytaani rajimi rabbi aousu bika min hamazati sayatini wa aousu bika rabbi an yahduruni mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi nga xam ne yéenay safoo sunu seen bi Diwane TV ñoo ngi leen di nuyu te leen jaajëfal bu baax baax di jégg lu baax a baax nga di dugal vidéo yi waaye semaine bii passé lépp dama leen boole woon ak démb di wax Mouhamed moo doon dugal vidéo yi ba ngeen seetloo ne xam ni sax kàllaama yi am na ak wuute ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax safoo ngeen safoo sunu seen bi YouTube bi di Diwane TV da ñaan ci barkeb alxuraanu karim lépp lu si waay jëlee na ko suñu borom barkeel yal na ko nangu te yal na ko ful te li nga ci sàkk yal na ko saa borom defal te leen jégg lu baax di ñaanal te leen bàllu àq ca weeru mag ñu dugg di suñu borom képp koo xam ni am nga it tey lu jëm ci wàllum tabaski lu demee ni ko xotti wala xar ak la ci ak la ci aju yal saa borom muy borom kartan mi malikal mulki di malikal xaqul mubin muy la ilaha illa wax waxdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu huwa ala kulli seen xadir moom i am lépp te man lépp yal leen ko yembalal ak fu ngeen mën a nekk ba ko si nekk am ko nam ko bëggee te du am benn coono ci barkeb rasulillahi ñu ko baaxee def saa su nekk mbokk yi ci sekkari leen di indil ci alquranul karim waaye laa talool ñuy jéggalu mbokk yi xam ne fan yëpp ñu ngi ñuy woon ndeysaan xam na na bëgg a seetlu seen i mbir dama leen di gàntal te xam ne diggante bi ñu nekk rek la moo tax jot gi may ñu ñu mën a xoolal kenn waaye du ak ñàkk leen yëg wala ak ñàkk leen a nangul loola xat-xat rek moo tax waaye incha allah rabbi bu jàlleek ak jàmm ak salaam képp ku bëgg a xool des na la ko xoolal ni nga ko bëggee incha allahu rabbi waaye mbokk yi may wax ni képp koo xamante ni bii da ngay yëngu ci lu mel wàllum football nga xam ne da yore ab équipe bu wala tam nga doon ab jour bëgg ak yëkkatiku incha allah buñ jokkoo mën naa laa boole koo xam ne ci loolu rek lay yëngu wala nga yor équipe nawetaan te kon a xam ne léegi nawetaan jub si nga bëgg a gañee dinaa la boole koo xam ne incha allahu rabbi mën na laa samp ba kere nga yegg final te suñu borom mën naa def la ngay xëccoo nga jot ko loolu am nañ ci yàqin bu wér a wér itam te gis na ni tam moo koy defal ñu baree baree baree bari man nag du man waaye dina leen boole koo xam ne incha allahu rabbi képp ko yorub équipe te bëgg ma dem sa kaw ba ngeen jokkoo mën na laa yoroo sa cimmikaay yi ba la ko bëggee nga amee ko noonu incha allahu rabbi tey indi leen secret bu am doole ci koo xamante ne bi das koo liggéey wala mu njort ni ab liggéey moo nekk ci yaramam mbokk mu doon secret bu yéeme bu àddina bépp boole woon ñi mën a takk takk ñi mën a jat jat ñi mën a bind bind lii may bëgg def boo ko defee lii may bëgg wax boo ko defee incha allahu rabbi fasansa la suñu borom di dindi lépp bu dee ab liggéey rekk la comme ni nga ko gisee ci écran bi loolu mooy lan baxda audu billahi min asheytaani rajim kun bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa sallama nga bind baatu fii jiidihaa fii jiidihaa cent fois téeméer yoon ngay bind baat boobu rek fii jiidihaa téeméer nga koy bind ba pare nga teg ca qul yaa ayyuhal kaafiruuna ba mu jeex saaro ba mu jeex teg sa qul huwallaahu ahad saar yi ba mu jeex teg sa xola onze berbil fallaxi ba mu jeex xola onze berbil naasi ba mu jeex bu si nekk benn yoon boo paree nga boole kook laaloy guy yi guy moom nga koy booleel nga sangoo ko ñetti fon laaloy guy ñi jaay ay sunguf ak yooyu boo leen ko laaj deen faral di am sunguf si insha allahu rabbi lépp lu nekkoon ab liggéey sa yaram daal dañ fa sansa fi sansa mu doon secret bu am doole képp koo xam ne njort nga ni ab liggéey moo ne si yow na ko essayé boo ko sangoo da nga xam ni secret bu kéemtaane la ñoo wax ni ngeen wéy di abonné tey partage vidéo yi ñu ngi leen di jaajëfal gis nañ yëg ngeen ñu ak woo ngeen ñi woowee surtout ñi nga xam danoo nekk réew ma jour ñu ngi ñuy woo di ñu jaajëfal day rafetu liggéey bi waaye ñu ngi leen di ñaanal jàmm yu sax dàkk te ñaan fépp fu waay nekk suñu borom defal ko fa ndam ak barke ak wërsëg ak xewal tem sax si jub ak jaamu yàlla te yéene ñëpp jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu